الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن دمائر هامل يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما ربي ينيش من علوما نافعة وجعل حياتي من سقاء مانعا اكشف لي الأسرار والغوامدا يا خير من كتب سرا آمدا لجمع جميع ما تفرق لدا قتي من الخير وسق الخلدا لقد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعصم القلم يا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة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 من ظن غير الله يغني أو يضر فداك في الدارين ذو قد وضر الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان الضر والنفع من الجبار ليس من الفجار والأبرار الضر والنفع من الوهاب ليس من الأعداء والأحباب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فن الأقدار يا الله سف البقاء به لي فيك يا الله بسم الإله اكفني الأقدار يا الله سف البقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسع ومن وأدلف فيك يا الله واجهتك اليوم يا رحمن مرتجيا فوزي بما سرت في دنياك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمته أن لا ألاقي ضرا منك يا الله ملك يميني وقلبي السؤل يا ملكي بلا حساب بجود منك يا الله ملك يميني وقلبي سغل يا ملكي بلا حساب بجود منك يا الله قدست سري يا قدوس مرتديا عني وعنك رديت الدهر يا الله أنت السلام الذي سلمت كل يمين ويوم نفسي بالتين منك يا الله يا مؤمن في جنا بالضر ما قدر وهب لي الأمن في دارين يا الله وبالمهيمن الاسهد بسرائك ما قد بعت سرا إلى الجنات يا الله أنت العزيز الذي أبقي بعزته عزا يقلدني تكريما يلاه أجبرت لي إنك الجبار دون نقاء كل الغداب الذي اخترت يلاه كفيتني كل ذي كبر بلا من يا متكبر رد الكل يلاه يا خالق الخلق ليخلق ما أسى أبدا بالبشر والسبع والردوان يلاه يا بارئ الخلق قل للنقى دون أدم وقل لي الأجر للجنات يلاه أنت المسور قل للنبي بسرا وصورا لي دون المكر يلو غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشد كوني يا غفار يلو غفرت كل ذنب قد أتيت به لشد شكري يا غفار يلو غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لشد شكري يا غفار يلو كهتني ربي أعدائي بلا سبب مني حمدتك يا قهار يلو وهبت لي منك سؤلا فاق مسألتي فلق شكري يا وهاب يا الله لقد أسمان لك يا من هو عمري وقد لي الرزق يا رزاق يا الله فتحت لي كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاح يا الله علمتني الغيب حتى صرت منتبعا أنت العليم الذي علمت يا الله قبضت يا قابض الأسواء وانصرفت لغير نحويك الأقدار يا الله بسطت يا باسط الآمال لي برضا فاسكن مباستتي داريني يلو خبرت يا قابد أني ومضوا لخير نهمي بقبض منك يلو رفعت يا رافع الدارين مرتبتي بلا انقباض بفضل منك يلو أنت المعز الذي لا تملو عزته خلا معزا وحبا فيك يلو أنت المذل الذي زلت لعزتي الإنس والجن والشيطان يلو أنت السميع الذي ناجيته زمنا وبالمسرات قد جبت يلدو أنت البشير الذي قال جملتها أنت البشير الذي قال قال جملتما لاخترت الدنيا وأخرى منك يلدو حكمت يا حكم الباقي بكون يزا فوزي بما غاب من بشراك يلدو قتلت يا قتل أعدائي بغير نعم ولا درار ولي قد كنت يلدو أنت الذي الذي قد قلت أبدا لطفا عجيبا يزيد الفكر يلدو أنت القبير الذي عايت قبرته وقدني منك علم الغيب يلدو أنت الحليم الذي زهزهت جملة من لم تردهم لي لغير الدهر يلدو أنت العظيم الذي بان عظامته لقد بدلا عظيما منك يلو أنت الغفور الذي لقد مغفرة مهد عيوبي رضيت عنك يلو أنت الشكور الذي كلي لديك رضا ولي شكرت جميع سعي يلو أنت العلي الذي أعليتني أبدا بغير مكر ولي هللت يلو أنت الكبير الذي بان التبارك لقد منك كبير الأجر يلو أنت الحفيظ الذي وجهت في أبد إلى سواي العدا والضر يلو أنت المقيت الذي قلتني رغدا بلا حساب إلى الجنات يلو أنت الحظيم الذي قد اكتفيت به عن الغدا والأذى والكد يلو أنت الجليل الذي ساقت جلاله إلى سوانا عند الدارين يلو أنت الكريم الذي قد قلت لي كرما دنيا وأخرى مع تفسير يلو أنت الرقيب الذي بانت صيانته كليتي عن سوى الرضوان يلو أنت المجيب الذي انقادت بغير عنا إجابة منك لي اخترت يلو وإنك الواسع الباقي ولي أبدا وسعت توسعة بنعق يلو أنت الحكيم الذي أطلقتني لسوى ما ساءني وما هوت السوء يلو أنت الودود الذي الذي قادت مودته لي سرمدا بالرضا والقرب يلو أنت المجيب الذي بانت مجادته وقلت لي منك مجدا فاق يلو أنت المجيب الذي بانت مجادته وقدني منك مجدا فاق يلو وإنك الباعث المبقي بلا كدر كفيتني جملة الأقدار يلو أنت الشهيد الذي انقادت سهادته لبسرائك مني ذاك يلو يا حق لسر حق ومجملة ما لم تردني مطلقا بفضل يلو أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلب يا ذا الخلق يلو أنت القوي الذي قويتني مرضا في السر والجهر يا ذا الأمر يا الله أنت المتين الذي قد كنتني بمنن ولا توجه لي المكروه يا الله أنت الولي الذي لا أبتقي بدلا به ولي كنت بي تامين يا الله أنت الحميد الذي وجهتني نعما بلا غرور وغير المكر يا الله يا موصي الخلق والأسياء جملتها كفيتني در ما أحصيت يا الله يا مبدع الخلق يا من لا توجهني ما لا أحب رضيت عنك يا الله محيط أحمد عبد قدني كرما في كل شهر ويوم فيك يا الله محيي بخير حياة جدني أبدا فلك شكري بسقم العمر يا الله مميت قد سقط موتي للغنى ولو مكاره سقط في الدارين يا الله يا حي حمدي وشكري مع رضا يمان مني يقص دون سقط كي يلو خيام قد قلتني ما كنت أدب بخير كسب إلى الجنة يلو سلتني واجد الأسمان دون أنا لك الوجود الذي لي بان يلو يا ماجد اجعل يداريني معتليا بخير كبر وعجب الرب يلو يا واحد اجعل لي الدارين منفردا مع المنى بعزيز منك يلو لك التجائي بما الاختير يا سمدي بسر جملة من أحببت يلو أرديت يا قادر المغصب سول مندفعا إلى سوانا لك التحميد يلو رسقتني الحجة يم أنت مقتدر مع الجوار وزول فيك يلو أنت المقدم قدمني هنا وغدا على كثير مع الأخيار يلو أنت الموقر أزبد الغدا ومضوا إلى سوانا نعم مع القسيان يلو وإنك الأول اجعل هنا وغدا في السابقين بفضل منك يا الله يا آخر اجعل لي الدارين دار تبت وصف عمري إلى الجنات يا الله يا ظاهر السوق يا المام ولا مرتديا عني وأزر بي القرآن يا الله يا باطن السوق لي الأسرار دامنا وجل فؤادي يزرف الذكر يا الله أبلي بفضلك يا والي مواصلتي خير البرايا وموالي يا الله وإنك المتعالي سوق دا كمان إلى سوى قد الدر الدهر يلدو وسق ملك وأعتق دون مفسدة وليستجب دعوتي يا بر يلدو علي تبت تبتمها وتدق بجملته تهت كل يا تواب يلدو أنت الذي من قدى الإسلام منتقم ولانتقمت بما اخترت يلدو أنت الحفو الذي عني عفوت بلا إبقاء عيب هديت الكل يلدو أنت الرؤوف الذي آية رأفته ولا توجه للأعداء يلدو يا مالك الملك لي وسعت دون جوان في الملك والملكوت الدار يلا يا مالك الملك لي وسعت دون جوان في الملك والملكوت الدار يلا يا ذا الجلال وذا الإكرام يا ابن يما لاخترت الدنيا وأخرى منك يلا قل لي يا مقصد المطلوب حيث أرى كلا وهبا مع الرضوان يلا يا جامع المغلي الأغراض مرتديا أني بكونك لي في الجمع يلا أنت الغني الذي لا ينتمي غرض إليك هب لي ما أحتاج يا الله أغنيتني إنك المغني بلا سبب فسرمدا ليكن بالفضل يا الله أعطيتني إنك المعطي من الكرماء كفيتني جملة الأعداء يا الله منعت يا مانع أسوأ من قبلي ولا توجه لي ما ساء يلوم من يا مانع من يا دار من الدر في أبد ولا توجه للإدرار يلهم لقد في كل شيء نقضي كرم يا نافعا لذوي الإيمان يلهم نورت يا نور كل ساميا أبدا كفيتني ظلم الأسياء يلهم قد قلت لي منك يا هادي هداية من قد صاب المستقى المختار يلاه أنت البديع الذي بانت بدائعه قلت البدائع لي بالأجر يلاه لسبع عمري يا باقي بغير الغد ولتبقني بكتاب الله يلاه لقلت جملة ما لختت من منن وراثة الوارث الأموات يلاه أنت الرشيد الذي قد قلتني رصدا في كل شيء مع التفسير يلاه أنت الصبور الذي وجهتني صمنا وقد ذهبت بما آباه يلو أنت الصبور الذي وجهتني صمنا وقد ذهبت بما آباه يلو سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حمدي وشكري لمن كل به سارا نهور دندون سقط عند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارا نهور دندون سقط عند سرسارا وهو سنائي ورضواني بلا سقط متقادني من بني ديمان أنصارها إن لله كل لدى آبار مكرمة من هرتحلنا وفيها جم من زارا لله كل لدى آبار مكرمة من هرتحلنا وفيها جم من زارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو زارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو سارها بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim. barke borom tuba nañ xellu lu ubbi suñ xol ta tàbbi ci wayu bur bi ku xellu xam ko nañ xellu lu ubbi suñ xel ta tàbbi ci wayu bur bi ki xellu xam ko nañ xellu ubbi xel ta tàbbi ci wayu bur bi ku xellu xam ko nañ yewu japp sun xol yi yep jébbal ko lamp mi sax ci yor ko nañ yewu japp sun xol yi yep jébbal ko lamp tay sax ci roy ko nañ waru jébbal sun xol ki magal murid yi kennal di gëm ko naw ko nañ waaru jébbal suñ xol ki jàngal murid yi kennal di gëm ko naw ko Cheikh Ibra mbër la te mu mag la te mu tal la ku yeewu xam ko ku rëy ku daar la ku xam ko way la ku jëf mu may la Baay Faal yi gëm ko ku rëy ku daar la ku xam ko way la ku jëf mu may la Baay Faal yi gëm ko ku waaru wéeru ku xib i seeru seyxun kabiiru kii mooy ki doon ko xëy sun safiyon abdun mutiyon xaw sun mutaayon kii mooy ki doon ko ki sebbi tooyal tëji ba ngóobal biir yi mu feesal xol yi mu sol ko cër yi mu yar ko xel yi mu fees ko lor yi mu fet ko njariñ mu wal ko xol yi mu duy ko tër yi mu far ko bamba mu wan ko murid yi gëm ko daa di jox ko di raam di jub ko buy wax du dégg ko day noppi laaj ko yii gaay di roy ko yii gaay di daw ko mu sax ci sàkku fab lépp ŋoor ko baabu mu doon ko dalil mu doon ko xalil mu doon ko ku xel lu gëm ko fab lépp gëm ko fab lepp ngepp ko yew yëpp wër ko ay yëpp daw ko ga yëpp dar ko fab lepp ngepp ko yew yëpp wër ko ay yëpp daw ko ga yëpp dar ko gor ñepp gëm ko do yi wër ko lu wax ñu def ko di jëf di jox ko tawam mu taw ko tolam mu bay ko sakam mu di ko ku ñaan mu jox ko ku sukku sakku na dëgg bu takku di kañ ko sakku lum laaj mu jox ko kuraam di way ko bayit di jor ko mayam nga wax ko lo sakku am ko góor booy ki doon ko góor mooy ki doon ko mbër mooy ki doon ko ki roy ko naw ko yiw yépp jub ko làpp li gëm ko ci jinne wër ko amul ko xam ko ci biir ñi xam ko làpp li gëm ko ci kaw di kaj ko amul ko xam ko ci gaa yi gëm ko làpp li xam ko ci suuf di roy ko amul ko man ko takk ba xam ko xut bu yi xam ko xaw si yi gëm ko soppe yi jub ko amul ko xam ko xut bu yi xam ko xaw si yi gëm ko tama yi jub ko amul ko xam ko waliw yi sam ko soppe yi dar ko di way di jóor ko amul ko xam ko jëmmam ko gis ko gis taar ba yéem ko ni mel xamal ko kenn dootu mel ko jëmmam ko gis ko gis taar ba yéem ko ni mel mel ko kenn dootu mel ko jamaal ji taal ko jalaal ji fees ko kamaal gi daj ko ndomma yi aw ko dëgg li taar ko sikkim bi wër ko kaalaam gi daj ko palmaan mu sol ko dëgg li dër ko sikkim bi wër ko kaalaam gi daj ko palmaan mu sol ko gët yi mu dóor ko wet yëpp xool ko gët yi mu xool ko wet yëpp gis ko xol bi mu duy ko min nii ki gëm ko gët yëpp mu xool ko wet yépp gis ko xol bi mu duy ko min ki xam yëpp mu xool ko wet yëpp gis ko xol bi mu duy ko min nii ki may ko ku bañ ko xalku ku noonu sànku ëllëg ñu yeew ko ay ceeb ñu dóor ko yiw yëpp mooy ko ay yëpp wër ko malaaka bés ko jëx na mu mos ko sa xomm naan ko dëgg ya di jam ko ya daw ko iblis ree ko lamp ko wax ko lu mu wërta wax ko ba sax nga wax ko ci gaay yi gëm ko lamp ko wax ko lu wërta wax ko ba sax nga wax ko ci gaay yi gëm ko nañ bokk sip ko ta moy ko daw ko bugal na wacc ko ngir dana dal ko lamp ñi lamp ñi bañ ko duñ teemu yokk xaji di bëw ko duñ mas di laal ko lamp ñi bañ ko duñ teemu yokk xaji di bëw ko duñ mas di laal ko tilni xas yi jañ ko duté mu yok ak gaay yi gëm ko ti li xass ko gundor yi jagn ko duté mu yok ak gaay yi gëm ko yàlla nañ di gëm ko tay sax ci way ko ta sax ci roy ko barkeb ki fal ko barkeb qadimi lay way qadimi shaykhul qadimi kay làmp bamba baye rijaal sangum kamaal borom nga neeli siraju bamba jasaaka lamp ki bamba sampu def ko ni lamp ci gaay yi bamba jaarama jaajeuf khalilu yasaf ya wetti khalilu bamba leeral na yoon wi yoonu murit wi teg ñu fu wi mooy loo ñu bàmba waaxu ne ñëw leen maay wane gëm leen jëf leen te roy leen maa yoonu bàmba bàmba di dëkk maa yoonu dëkk kuy jëm ci dëkk maa yoonu bàmba daa bàyyi boppam ak bépp mbokkam bàyyi boroomam jàpp ci bàmba jox lépp bàmba jox ko ba foofu tee ñu yan ba xamal ñu bàmba bàmba ko jiital ngir moo ko wéetal bu leen ko juutal mooy léppi bàmba Seex Ibra yaay mbër yaay kenn yaay gor yaa jox ñu sikkar suy wat ñu bamba baatub ilaahu amul ilaahu illal ilaahu habibu bamba sikkar di wérdu taluñ di fuddu fuñ tollu tuddu allahu bamba dañ naa la dër dër di dox kay wër sikkar si day tar ciy làmp bamba taxaw ne jonnu sikkar ba sonn di wax ba dënnu xaliilu bamba giñ naa ne doo maas rawe nga ciy xaas sa barke laay taas yow làpp bamba wane sëriñ bi la ënni dun bi ak teeñi yan bi mooy xamle bamba lu bamba bind dëxañ sa dënn foo toll benn yaay kënu bamba yaa raw ña njëkk ak ñi fi nekk kuy manti dikk yaay wan ko bamba jiitu nga gaaya ña feese laaya yaa gàddu raaya xadiimu bamba rijaal yi xam nañ siddiix yi gëm nañ sa gaa raw nañ ci gaa yi bamba habibu léeyi xaliilu léeyi daliilu léeyi matal nga bamba sagub murid yi buntum gëneel yi kënub marid yi xaliilu bamba Sagup muridi yi buntum ngëneel yi khalil marid bamba sagup sëriñ si habibu gorsi si wa merci yow lamb bamba falu nga njëkk matal nga njëkk xëy door a dikk joxoñ ñu bamba ku falu yaafal kuñ folli yaafil yow ya fi feñal ahmadu bamba ku am fi ya jox sa tok ci ndox ba mu kawé dex siraju bamba yow rek yaay gor yow rek yaay bor nawet nga doonoor siraju bamba ñi xam la raw nañ ñi mos la ñëw nañ ñi bañ la daw nañ sabiilu bamba ku bay la booyul kuy rëbb pertul ku bay la booyul ku gëm la pertul kuy rëbb sooyul xadiimu bamba ku bay la ñorle ku waañ la wàlli ku mos la dolli daliilu bamba yow yaa di puukar yaay sunu puutar yaa dàq suukar yaa saf ñu bamba yow yaa di misbaax te yaa di miftaax yaa màgg yaa baax yaa xamle bamba ba nañu mbokk dikkal la jokk te di la sakku ngir jëmmi bamba yaa di rijaalu yaa di kamaalu amoo misaalu ci gaa yi bamba yaa indi sukku ak sax ci sakku tey bañ a bakku ci tooli bamba yaa indi jëf jël mooy taxa am fal ca yàlla ngas jal te moo di bamba taxañ nga yoon yi yoonu rijaal yi ci ñetti at yi nga am fi bamba yaa xàll yoon yi yaa ci xol yi yaa dàq noon yi yaa wane bamba ba ngay wëreelu ak ay daneerlu fu ne nga leerlu ngir gëstu bamba wër ba ko di dora depp gis ndaw ya top ba bamba nya yenno ars ak kursi an ak sikar nga jëm fa bamba ñi teggi ndan ci bépp den ñi dox ba mën ngir séru bamba ñi teggi ndan ci bépp den ngay dox ba mën ngir séru bamba ñu naa le est-ce que lepp a ay day may ngir lamp bamba ku ñëk ya gën ngir lay taxay gën la gaay sagan bamba bëgg gëma jëf moy maye jaajëf loo mën a tee jëm jébbal ko bamba fa bi jébbal ak ruux gi jébbal a màggal ngir sàkku bamba cofeel gi not la ba far taxañ la yóbbu fa yàlla nga seeru bamba fekkoon nga gaa yi ñoom ñëpp tayyi ba am ñu bàyyi ngir réere bamba fekkoon nga gaa yi ñoom ñëpp tayyi ba am ñu bàyyi ngir réere bamba nga xàll ngir mi tariixul xaw bi duuni saw mi ngir jot ci bamba yow yaa di sëmm kuy lor fi jëmm nga takk bëmm yaay gaynde bamba sella a sellal nga def ba àggal yaa jolli leeral ñawan fa bamba ñaq a nuqi gas aka wàqi son na ko toqi ngir sàkku bamba sa gëkk a siggi teg a teggi yëg aka yegge ba jot ci bamba karaw bu sëq yére yu taq liggéey ba ñaq jox lépp bamba balee ka rooti nga def sa mbóoti bii jaba xam nañu bamba bamba la tànn nga doon fi kenn def naa la kenn xaliilu bamba kuy wax ci say mbir safaan daanar dajeeki naqar ci barke bamba kuy wax ci say mbir safaan nga daanar dajeeki naqar ci barke bamba waylun li kulli bëggul nga jolli kuy bañ nga jolli moo réere bamba nen lañu ngay xeer mbaa xeer nga ñuy weer amooy frontière ci pays yi bamba nañ sopp lamp te jàpp lamp te xam ne lamp mooy yoonu bamba nañ roy ko tey xool jëmmam te suñ xol ñu jox ak xel ngir jëmmi bamba Seex Ibra ñoo ngi suñ jëmm yaa ngi yaa ngi te ñoo ngi xaliilu bamba yal na ñuy baay faal yi fees ak i xaal jolli nii taal ci gaa yi bamba yal na ñuy dong ñu gëm la dong te mooy la nangu yow làmp bamba lamin taxawlul sa way ta xatmul te fas ci dëtmal ci seexi bamba fas ci di waykat ci bamba mii mat te doon fi baykat ci tooli bamba salli wa sallim alal mutammim wa kulli yaasim ci barke bamba subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin addi